naa ay pas yu yuy topp yoon bi pour dem Nicaragua man bu dee xolal jëlal avion wàccal Nicaragua jëlaatal avion wàccal Texas jëlaatal non non man avion direct bu may demaat Amérique xolal ni ñu goree di waxe woon lu bon ci man ba indi ma fii ci goree di pour toroxal ma te toroxuma ma ñëw dox mission bi ma waroon a dox xolal noonu laay yéegaate ci avion fii mu wàccee ma New York directement wala mu wàccee ma Californie biir Amérique directement ah ah ne xolal xeex bi dama koy jeexal man par force par force damay jeex ci xeex bi <laughs> may gaynde ci xeex bi gaynde Assane Diouf gaynde la ci xeex bi mais aw ma ndeyi parti man ànduma benn parti Sénégal aw ma parti Sénégal mooy sama parti man Sénégal <laughs> injustice ma dem taxaw leneen luy am ma dem taxaw te fépp fu ma jaar rek injustice la tey ma téye lépp tey ma moom lépp xamali nga ma la bu mu tax nga yàq deru doomu aadama bi bu mu war a tax yow nga war a toog rek di yàq deru doomu aadama bi patriotisme man dangeen yow laay waxal ba léegi de doomeraamu réew mi ah dangeen doomeraamu réew mi man la Assane Diouf encore bàyyeeguma la de sa plainte dem na dik sa plainte ah dem na dik dinaa la démasquer sa léegi yaa ngi wane ne <laughs> yaa ngi wane ne dara dinaa la démasquer yow sa plainte dem na dig depuis vendredi ni ma la ko waxe woon mardi dinaa fa demaat ba ñu wax ma li ma war a def parce que man dama jaay sama ngor ci lépp sama ngor dama ko jaay ci lépp xolal ba wallaahi yenn kër nit yi wala politiciens yi sax duma fa dem dafa jaaxal ñëpp parce que ñëpp dañ doon gaañ bi war na nekk député wala gaañ bi war na nekk maire wala gaañ bi war na nekk lii yee kooku yéen la seen bëgg-bëgg la <laughs> man dund laa tal xolal wax li ma war a wax ci li ma li ma yàlla jagleel ma mën a wax nit ñi déglu ma ma di ko xam di ko gëstu mu nekk lu leer ma génn wax ci ak sénégalais <laughs> génn wax ci ak sénégalais yi dem leen vaar dem leen ngeen vaar Assane Diouf man kenn mënuma vaar parce que lépp lu ma leen wax rek bis buñ ci eggee ba mu taxaw rek vaar leen ma ay duul ay duul duul duul duul sos viiw duul duul sos viiw dàngin doomeraamu réew mi bu ma tawgaat fii di ñàkk teggin Sénégal gi ah Cheikh Abdou Mbacké Baara dolli boobu ngay wax ba naan ko tey bu ma doon tànn ci mala yi ban mala surtout Serigne Touba la ah. daa ngeen réew mi xolal <laughs> xam nga li nga wax est ci réewande ak farandoo ak bës Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly da ngeen di woote patriotisme mais moo leen fa jëkk xeex tey dem di gis Ousmane Sonko nu mu ko neexee di wax ak moom ma nekk témoin nag parce que dañoo daje daje dajewaat biir kër Ousmane Sonko ak feneen <laughs> bi xeex bi ñëwee deux mille vingt moom. ci ñu doon taxaw di xeex Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly boobu yow xamuloo luy actualité doomeram dangin doomeramu réew mi nga taxaw yow nga ne ko su ma doon tànn ci mala yi ci mala yi yéen a may dégg Sénégal su ma doon tànn ci mala yi yow kaña laa lay tudde quoi kaña surtout Serigne Touba doomeram dangin doomi réew mi xaw ma doomeraamu réew mi fii Sénégal ah, fii nii Sénégal fii ñu nekk nii yéen ngeen di woote patriotisme nit ñi di leen dégg ngeen di woote valeur di xeexal ku am ay valeur Ousmane Sonko du xeexal ku am ay valeur yéen waa Pastef yéen waa kër Ousmane Sonko yéen waa Pastef yéen waa kër Ousmane Sonko ngeen ne ay patriote ngeen cent pour cent ku wax ngeen ne patriote ku wax ngeen ne patriote fëgg dënn valeur yi Ousmane di woote ah ngeen ne da ngeen koy woote ngeen jël ay sëriñu fenkat ñu nekk seen biir di fen rek yéen ngeen xam ne ñoom dañuy fen ngeen xam ne ñii bës dong moo leen fi indi xolal fond de commerce kese moo leen fi indi parce que Pastef mooy benn partie ci Sénégal boo xamante ni ki ko jëmmal dafa am ay valeur dafa am ay valeur yéen a ko wax moo tax ñun xoolal valeur yooyu ngeen ngeen na wax ne moo nekk ci moom man ba may dem ba may dem këram deux mille vingt et un valeur yooyu laa doon topp parce que bokk naa ci ñi njëkk a génn ci Sénégal ne leen Ousmane Sonko mi nangam ak nangam ak nangam man <laughs> man Assane Diouf assumé assime ngeen ne yéen da ngeen di représenter lépp valeur valeur sawaay après ngeen bàyyi ay fenkat ci seen biir ay fenkat ay sëriñ yoo xam ne dañuy jóg di fen Cheikh Baara Ndiaye Cheikh Baara Ndiaye danga maa may ay teggin rek dama lay may ay teggin man it Cheikh Bara Ndiaye mais xam nga ne man maa mag ah man man man man maa la mag ba pare am luñ am foo xamante ni Cheikh Bara njaay ay mbokk lañ fa waxal nga ko sa bopp nga wax ne nitu daara nga ngay toog ci télé yi nit ñi di wax dëgg rek ah dëgg dëgg kese parce que yéen a ko woote yéen waa kër Ousmane Sonko yéen ne dëkk bi day nekk ci dëgg patriotisme dañuy def lii projet bi projet bi projet bi projet bi day ànd ak dëgg day ànd ak dëgg meen yéen waa Pastef man la Assane Diouf <laughs> Baye Fall projet bi suñu projet la ñun pour ñun ñëpp moo taxoon ma joxe sama deret yéen waa Pastef te jamono boobu fenkat yi yëpp di génn di fen tey xool leen dem leen ci image yi du leen gis fenn du ngeen leen gis fenn fenkat yëpp <laughs> fenkat yëpp Cheikh Bara Ndiaye yow danga wax ne da nga wax ci émission bi ne Assane mi nit ku dëggu la nit ku dëggu la senegal yépp xam nañ ko ci dëggoom waaye tey dafa juum Cheikh Bara Ndiaye danga toog sénégalais yépp di la déglu sénégalais yépp partagé leen vidéo bi da ngaa toog sénégalais yëpp di la dégg yow Cheikh baara njaay nga ne Assane nit ku dëggu la sénégalais yépp xam nañ ko waaye tey dafa juum ba pare wëlbatiku ne Mara moomu nag dama leen ngeen déglu li mu wax de dama leen koy dama leen koy wàcceelaat rek ngeen xam ne man duma dugg ci lu sama yoon nekkul duma dugg ci lu ma xamul du ma dugg tamit ci loo xamante ni aw ma ci cër dama caa am cër parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk daje na ak yow. keneen ki moom lu mu mës a wax du ma tudd turam beneen maaraa boobu moom wallaahi maa leen ko wax wallaahi lépp lu mu mës a wax ay fen la mais yow Cheikh baara waroon ngaa ruus am gàcce nga fàttali ko ne nekk nga ci palaas boo xamante ni yow rekk nekkuloo fa man fekk naa la fa bis bi ñu taalee sa oto man maa fa njëkk Mara Niass Cheikh Bara ba bi Mara di ñëw di gaare ah maa ngi toog sama oto di wax téléphone ñu tàggatoo nga nekk ci téléphone Cheikh Bara Ndiaye <laughs> Cheikh bu bugguma sori mais yow tamit doo wax ko dëgg te sénégalais yi sénégalais yi xam nañ ne doo wax katu dëgg ba pare ñi ngay àndal ñu lay jay ni heure boo taxawee xolal di wax yenn wax yi xam nañ ne doo wax katu dëgg parce que wax nga fi amul nga waxaat fi amul nga waxaat fi amul lépp nekk ay kàcc moo tax doo waxkatu dëgg man duma ma ne la ngaa juum mais doo waxkatu dëgg yow Cheikh Bara Ndiaye <laughs> patriotisme du da ne Ousmane Sonko ak ay valeur kese sénégalais billahi wallahi wa taalaahi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fenkat boobu maaraa fenkat boobu di mbubboo sëñ saaliw billaahi wallaahi wa taalaahi moom ak Cheikh Baara Ndiaye ku ci nekk am nga sa numéro morom dama li may wax dafa am firnde dama dafa am firnde te moom Cheikh Baara xam na ne li may wax dafa am firnde da waxkatu dëgg Cheikh Baara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye doo waxkatu dëgg yow farandoo nga farandoo nga parce que da nga ko wax yee maa ngi gërëm maara moomu nag ndax moo ma doon défendre moo tax ma défendre ko demal nga déglu li nga waxaat maa ngi gërëm Mara Niass moomu ndax moo ma défendre moo tax ma défendre ko farandoo Cheikh Bara Ndiaye farandoo ba pare yéen waa Pastef ngeen am ay nit yu mel noonu ci seen biir ngeen am ay nit yu mel noonu ci seen biir yéen waa Pastef man yéen laay waxal parce que ëppalewu leen ma ci sama rakk mooy mooy mooy chef de parti bi na te ñu ci bari ñuy génn di ubbi seen làmmiñ ci am man jataay yi ma am ak Ousmane amuñu ko koo xamante ni xëy nga toog mu toog ngeen ndékkee ndoo mu war la defaral ndékki yow ba pare pour pour xam nga ndékki añ mu ne non bàyyi leen ma ma bokk ak grand Assane euh, naka la tuddati soxlawul sax tudd ki ma ñi may waxal buñ xam nañu seen bopp ñu am suñu kóllëre muy xeex pour réew mi ñu ne patriotisme mais ci biir patriote yooyu am ay mag yu ci nekk ay nit yoo xamante ni bës rek bës bës wallahi billahi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bës rek rek mooy tax ñu bàyyi leen ci seen biir ñuy continuer di fen ñoom ñu xam ne ñii dañuy fen ñoom ci seen bopp ñu xam ne ñoom it dañuy fen ñu bàyyi leen ci ba pare naan patriotisme les valeurs <laughs> cottu ndeyam xolal lu leer laa leen di wax Macky sàll buy dem ah sàll Sall xolal Macky Sall baaxul buy dem bu Macky sàll di dem baaxul lépp lu bon bu fekkee ne moom président lañ fi jëlee waxuma laa ay sëriñu fenkat ay sëriñ yoo xam ne fen rek source de commerce fonds de commerce di leen dunde yéen patriotes yi di leen dundee yéen patriot yi ngeen xam dafa am Pastef les patriotes de Ousmane Sonko Bassirou Diomaye El Malick biram Souleye Abbas Fall xam nga naka la tuddati sama doomu ndey Amadou Ba yee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba ñu muy àndal xolal ñu yor sécurité am nga xam ne duñ la may nga jege ko sax xolal bu ma ñëwee <laughs> changer leen man changer leen da ngeen a bëgg a defar génn leen fenkat yi seen biir tamit affaire yi day dema ah. man lépp lu ma leen woon soon wax Amérique ba léegi ku ma leen mës a tuddal tuddam dem turam ne leen kii nangam ak nangam xoolal preuve yu leer preuve leer sama gars yi patriotisme pas mon partenaire ou sama farandoo patriotisme pas sama partenaire wala sama farandoo Sénégal patriotisme Sénégal la patrie before ou la patrie avant le parti te <laughs> yooyu yëpp dañu cee nax dañu cee nax bi ci topp ma jël sama temps wax tuuti ci opposition bi opposition opposition bi xam naa ne opposition sax amu fi parce que opposition bi Ousmane Sonko la woon bu dee wàllu politique bu dee wàllu xeex nag comme ni ma leen ko yàgg waxee rek opposition bi mi ngi nii Assane Diouf mooy fëgg sama dënn ci ngëm yàlla bu ma gisee keneen ku def lu raw li ma def man xoolal wala lu ko jiitu ak nuñ ko mënti waxe saaga kat laag lu mënti doon après amul problème patriote yi ah patriote yi changé leen man <laughs> man ak yéen ñoo bokk fu ñu man projet bi laa gëm man lu baax laa gëm parce que yéen yéen ne projet bi lépp a baax te man lu baax laa gëm ah patriotes di changé leen xeex bi du sos ak fen te dafa am ay fenkat yu nekk ci seen biir di leen sosloo di leen fenloo te li ñuy wax yépp dara du ci dëgg barke Mohammed dara du ci dëgg dañuy fen ngeen xam ko ñoom ñu xam ne dañuy fen ñiy toog ak ñoom sax seen mbokk yi xam ne dañuy fen mais fonds de commerce fonds de commerce waay amin jërëjëf merci après naa xam naa incha allah incha allah kooku mooy maître Ciré Clédor Ly moom xam na <laughs> ndax assen Diouf patriote la wala déet moom xam na man Ousmane Sonko defendre naa ko fépp sama yoon ci lu passé nag bi ma demee bi xam bi fi dëgg gi féete ah ak lan moo xew ma gis ni mbir yi di demee ah kenn yabalu ma kenn yabalu ma te billaahi wallaahi wa taalaahi defuma ñetti fan génn kaso maanaam dañ ne ma yow Ousmane Sonko musulaa xeexal looy wuti foofu ba lii yëpp di la ci fekk fan ñu ñëw encore dajji sama kër ndax loolu parce que guddi yooya ah, guddi yooya ah, Amérique laa jóge tolloon naa foo xamante ni xolal nguuru Macky Sall dafa war a jeex rek guddi yooyu man moo tax man la njëkk a ñëw dajji sama kër dem jëli gi Mari Sagna topp Clédor seen ñoom Abbas Fall ñun ñëpp Sénégal dellu siwaat leen seen xel yi delloo siwaat leen seen xel yi man du ma d'accord injustice fenn fenn <laughs> boo ñëwoon sama biir kër sax ngay gën a waaru du ma d'accord injustice fenn mën nañoo juboo tey mën nañoo xuloo suba parce que dëgg rek mën nañoo juboo tey mën nañu xuloo suba parce que dëgg gi rek soxlawuma un wu kenn ngeen wax valeur yooyu yéen ci Pastef wax ko ci Ousmane Sonko Sénégal yépp di leen dégg suñu yaay yeeg suñu papa yi ñëpp àndandoone eh xolal kii moom lañu war moom lañu war a fal suñu président ngeen am ay fenkat ay fenkat ay fenkat duulkat ci seen biir ay nit yoo xam ne gëmuñu Pastef xew xew Pastef lañu gëm maanaam xew gi Pastef xew gëmuñu Pastef barke Mohammed ñu ciy wut lu ñu yóbbu seen kër di leen dundee ngeen xam ne ay fenkat lañu ñu yàq deru yeneen doomu aadama yi après ngeen bàyyi leen ci ngeen ne yéen ay patriotes <laughs> come on brother yéen waa Pastef ñi may waxal nag xam nañ seen bopp parce que bu ma nee Pastef maanaam mooy ñi maanaam ñi may waxal xam nañ seen bopp nag dama koy leeral dama fam ay nit ay nit ay ñëpp am ak ñoom kóllëre ñu respecté ma ma respecté leen mais yéen Pastef buzz dafa am Pastef les patriotes de Ousmane Sonko Bassirou Diomaye El Malick Birame Souleye Abbas Fall xam nga naka la tuddati sama doomu ndey Amadou Ba yee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba ñu muy àndal xoolal ñu yor sécurité am nga xam ne duñ la may nga jege ko sax xoolal bu ma ñëwee <laughs> changé leen man changé leen da ngeen a bëgg a defar génne leen fenkat yi seen biir tamit <laughs> affaire yi day demaa ah. man lépp lu ma leen war soon wax amerique ba léegi ku ma leen mës a tuddal tuddam dem turam ne leen kii nàngam ak nangam xoolal preuve yu leer preuve yu leer sama gars yi patriotisme pas mon partenaire ou sama farandoo patriotisme pas sama partenaire wala sama farandoo Sénégal patriotisme Sénégal la patrie before ou la patrie avant le parti <laughs> yooyu yëpp dañu cee nax dañu cee nax bi ci topp ma jël sama temps wax tuuti ci opposition bi opposition xam naa ne opposition sax amu fi parce que opposition bi Ousmane Sonko woon bu dee wàllu politique bu dee wàllu xeex nag comme nu ma leen ko yàgg waxee rek opposition bi mi ngi nii Assane Diouf mooy fëgg sama dënn ci ngëm yàlla bu ma gisee keneen ku def lu raw li ma def man walla wala lu ko jiitu ak nuñ ko mënti waxee saaga kat laag lu mënti doon après amul problème patriote yi patriotes yi changé leen man <laughs> man ak yéen ñoo bokk fu ñu jëm man projet bi laa gëm man lu baax laa gëm parce que yéen yéen ne projet bi lépp a baax te man lu baax laa gëm ah patriotes yi changé leen xeex bi du sos ak fen te dafa am ay fenkat yu nekk ci seen biir di leen sosloo di leen fenloo te li ñuy wax yépp dara du ci dëgg barke Mohammed dara du ci dëgg dañuy fen ngeen xam ko ñoom ñu xam ne dañuy fen ñiy toog ak ñoom sax seen mbokk yi xam ne dañuy fen mais fonds de commerce fonds de commerce dañu am combat men tey jii mooy le vingt cinq février deux mille vingt quatre ana ñu nekkoon seen biir di leen waatal chaque jour di wàcc yonent bi ay bulletin Ousmane Sonko bu soobee yàlla le vingt <laughs> yow tey la vingt cinq élection amul moo tax loolu moo tax sama gars yi partagé leen partagé leen partagé leen loolu moo tax tey ngeen baal ma ma am lu ma leen tegal ah. fonds commerce di leen dunde yeen patriotes yi di leen dunde yeen patriotes yi ngeen xam ne dafa am ko mooy woo waaw maître maa ngi maa ngi sant da dama dama nekk nii ci live bi di di di di di communiquer waaw mais nuyool nuyool ak sénégalais yi kay comme yàllaa def nga woo ma ci biir live bi kay wu nuyool ak sénégalais yi man bu ma paree bu ma paree woo la eh, kii maître Ciré Clédor Ly la ma maître may ma tuuti kii kii di wax nii yàlla day seede rek mooy maître Ciré Clédor li xawma lu tax mu woo ma wallaahi te xam ngeen ko yéen patriotes yi laaj leen ko ci problème mu usmaan man ci sama bopp bokk naa ci ñi ko njëkk topp pour mu pour mu jàpp ci ci xeex bi mu bàyyi léppam Siré Clédor Ly moom moo ma woo nii mu nuyu leen rek parce que soxlawul ñuy dem ci yeneen détails yi avocat bi gën ci jeunesse bu senegal avocat bi gën ci jeunesse bu senegal nag parce que man nit ki lu ma dund ak moom rek laay wax sama yoon ci lu keneen di wax mu sonn wér-gi-yaramam sax pour mu nekk ci wér-gi-yaramam bi ko gënal moom maître da koy bàyyi di xeexal sénégalais yi xeexal Ousmane te xam lan mooy dëgg ma bàyyi mu nuyu leen ah après ñu continuer live bi maître euh, waa Pastef tous les Sénégalais. Mhm. bu ñu ko tuddee rek dañu war a jàpp nekk deretu euh, patriote la yor. Mhm. sans aucune distinction. Mhm. bon yëf yi metti na yëf yi gudd na. wante loo gisee dina am fu mu dee. waaw li nga xam ne que moom la Sénégalais yi gëm. te bëgg seen réew doxee noonu. fekkee nekk ba tey dëggu nañ ci. Mhm. sunu allah. nga àgg si si jàmm ak salaam. Mhm. kon mbokk ci ne maa lay nuyu di la ñaanal. nuyul ma sama rakk ji boo ko gisee comme ni ma la daan yóbbantee nuyoo rek. incha allah mhm. ñëw Paris man suba laay ñibbisi. gis naa maa ngi suivre kii bi réseaux sociaux yi ak patriote yi. su ma ñëwee dinaa su ma ñëwee fekk. ak Diomaye ak yëpp génn. incha allah amin waay. yal na la yàlla indeeg jàmm. amin loolu woon de ñu bokk ci opposition bi ñu am seen mission di ko dox ñëw dugg seen biir après douze ans ñu xeex. ay weer des ci ñoom ñu ñëw dugg seen biir defandoo ak yéen conférence de presse kenn ki taxaw na fi ne man élection li may def ali nguy Ndiaye nag laay waxal <laughs> damay jël liste bi benn par benn Aly Ngouille Ndiaye moo doon ministre de l'intérieur bi ñuy taxawal parrainage bi Aly Ngouille Ndiaye moo leen doon dirilu ci mbedd mi bi ñuy taxawal parenage bi fàttaliku leen moo doon exécuté ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye tey ci opposition bi la bokk ah. Mame Boye Diao moo taxaw ci palais bi ne eh yéen ñii waa Bennoo la doon waxal de waa Bennoo bokk yaakaar xam nga lu mu leen wax ah xam lu mu wax waa Benno président ñun ñoo wax ne dañ lay fal troisième mandat dinañ la fal troisième mandat yaa ngi may dégg <laughs> ku mu neexul génnal saal bi maam boo jaaw damay jël ci liste bi ñett rek ñett après ma ñëw ci ñu ci des ci ay information yu leer nañ ñu nag Mame booy Diao tey ci opposition bi la bokk ah waxul woon ak opposition bi de waa kaawam la doon wax ne yow président ñun ñoo ne yow lañu àndal yow yow la ñuy fal pour ce deuxième quinquennat tourné ne waa salle bi xolal ku mu neexul nga génn ci biti mais ñun loolu la ñu wax Mame booy Diao am na ay yéen yéen ñu yàlla xarañeel ci man <laughs> xam nga man damay wax rek wax ji laa wax ji laa ci maye yéen tiktokers yi jël leen li may wax après ngeen dem vaar am ngeen lu ngeen yóbbu vaar ba xam damay fen maam booy jaawe ci opposition bi la bokk tey Anta Babacar Ngom baayam baayam Ngom ay sénégalais baykat ndengaleer ay sénégalais baykat ndengaleer nangu seen terrain jël ay gendarme ñu dem dóor leen ay lacrymogène seeni tool sax laay wax du seeni terrain trois mille et quelques hectares trois mille doomam Anta Babacar moo àndoon ak Macky sàll moo ko wax bàyyi ma ko wax di ko jàppale mu di ñu nootan ah. nooteel googu ñëw mu prouver parce que fekk ay baykat yu yor seeni tool nga dagg ci trois mille et quelques hectares ñu ne la fii suñuy tool la nga jël dooley nguur yóbbu fa ñooñu opposition la ah. ñooñu opposition la ñaa ah. dem leen ngeen wuy ji Macky Sall suba cattu ndeyam xorom saa ngi fi barki Serigne tuubaa Mbacke xorom saa ngi fi dem leen wuyu ji mag Sall men ñun dañoo xeex dañu xeex 12 ans ba léegi ñuy xeex 12 ans ñuy xeex. ngeen bàyyi ay nit yoo xamante ni démb rek ñoo leen doon diri ci mbedd mi yenn opposition bi di leen diri yi gàdd di yóbbu fu ne. mu ñëw toog a yéen def ak yéen conférence de presse wuy ñu Macky Sall te moom moo doon exécuté lépp lu Macky sàll ma sa wax ba élection 2019 suufu ndakaaru bii Mame Boye Diao <laughs> ñun ci information la ñuy dund lépp lañu xam kilifa yi rek la ñuy toogal ay kilifa rek lañuy toogal di waxtaan ak ñoom ba pare ñuy dëggal li ñuy def di la wax sax naan la cey boo xamoon nangam am nangam bi yóbbu ko gis nga lii preuve yaa ngi nii ay kilifa ñooñ ci opposition bi lañu bokk ah dem leen wuy ji <laughs> dem leen wuy ji Macky Sall men dem leen ngeen wuy ji Macky sàll mu neex leen mu naqari leen da ngeen war a dem wuy ji ndeyi Macky sàll nu mu gën a gaawe parce que ñun ñoo doon xeex et quelques doomu Sénégal dee nañu fi civil homme de loi ay milliards marchandises u jaambur yi yàq nañu fi ay junniy junniy nit ñàkk seen liggéey ñuy xeex altine waa ji waxoon du ma ne waaw du ma ne déet duma ko def duma ko def ci njekk moom moo ne képp koo xamante ni mën nga ci dox wala nga mën ci wax altine ñu ñëw ñu toog gën ngaa yàgg talaata ñu tënk jàpp datu élection yi bu leen ñu fontoo ndayam du ñu ay dof ay sénégalais parce que ñu ëpp ci ñoom à part patriotes yi à part patriotes yi wala taxawu Sénégal wóor na leen ne xolal un pour cent sax duñ ko am un pour cent yeewu leen Sénégal yeewu leen s'il te yeewu leen men ñu defar suñu Sénégal li yàq yëpp ñu génne ko suñu biir te bañ a def affaire yi farandoo ah def affaire yi farandoo dama ne dem leen ngeen wuy ji Macky Sall yéen sénégalais yi man nag yéen rek laay défendre man moom yéen rek laay défendre bu dee man moom am ok li américain di wax naa for me am ok am telling you bu dee man am ok parce que maa ngi dund te xam naa di may dunde te kenn dàqalewu ma dund li booy bi woyoon ne ku xaw ma xaw ma ku ku xaw ma lan sa noos kenn dàqu la noos ah <laughs> barki sëñ Touba. vidéo bi dama ko def heure bi lu ëpp ngoon laa daan live pour bu ñëpp yeewoo tey ci dimaas bi ñu toog am temps ñu mën a seetaan vidéo bi. boole koog waxtaan bi te waxante dëgg ah. boole ak waxtaan bi te waxante dëgg Sénégal bu leen kenn fontoo bu leen kenn fontoo bu leen nangu kenn fontoo leen parce xolal altine wala talaata ñu mën a waxtaan ñu jàpp datu élection yi gën gaa gàtt nag la wax ay olof la wax Sénégal Macky Sall moo ne altine wala talaata gën gaa gàtt ñu jàpp datu élection yi bu ko defee ñu mën a dem ci élection ci jàmm kiy jël réew mi ñu xool luñ ko jàppale mu avancé bari na li mu wax de mais li ci am importance dégluwu leen ko parce que vous êtes tous des manipulateurs li ëpp solo ci wax ji dégluwuñu ko wax da nga ciy jël li am solo rek nga nekk ci te moo leen woo bu leen leen ñu fontoo li mu ci teg dafa leer après dinaa woo parce que <laughs> lan la leen wax pour Sénégal am jàmm li mu wax pour Sénégal am jàmm la te yéen nee ngeen jàmm ngeen bëgg ah lan la Macky Sall wax bu leen ñu fontoo altine walla talaata suba la altine nee na leen dina wax ak yéen candidat concerné yi comme ni ko conseil constitutionnel recommandé bu wax ak ñoom ba pare dina wax ak candidat recalé yi bu pare wax ak société civile mais mati sàll moo leen jiite douze ans meen boobu mooy dernière toogam ak yéen pour waxtaan ak yéen parce que moom moo woote jàmmu réew mi da ngeen dem ngeen déglu ko moo gën toog ci salle yi di def ay conférence de presse di emmerder sénégalais yi parce que ñun ñooy témoins yi ñun ñoo toog mu wax yéen def leen li mu wax bu defee safaan ba après ñu def nañ daan def please <laughs> bàyyi leen li ngeen def sénégalais yi man parce que yéen ñooñu ñëpp ku ci nekk yaa ngi sa yaa ngi ci la neex kuy jënd ay oto presque ba ay cinq cent millions wala deux cent million wala cent millions te boobu am na sénégalais yoo xamante ni kilo ceeb kilo ceeb rek bu ñu taal seen kër da leen di sonal ba pare pour ñu am li ñu bëgg day metti ci ñoom mu leen ñu leen changé ngir yàlla ak yonent bi opposition bi ah, kan laa mën a wooye le leader fi mu toll nii mooy ki taxawaloon yeewi askan bi Khalifa Ababacar Sall Bassirou Diomaye président Macky Sall ñu ngi lay ñaan tey ci guddi balaa minuit yaa woote dialogue te candidat la tey ci guddi balaa minuit bu ñu yeewoo ñu ne ñu Bassirou Diomaye génn na ba dem na ci jaloog ba day defar sa image rek Macky Sall day defar sa image parce que yow yaa woote jàmm loolu rek laa lay yónnee ci conseil di la ñaanal yàlla nga am jàmm yaak sa njaboot ñëpp ay sénégalais lañ président Macky di la ñaanal yàlla nga am jàmm yaag sa njaboot parce que lu mu bon bon bon bu ñu waxee dëgg rek am na loo defal Sénégal xay na defaloo ñu lépp nag mais am na loo defal senegal te loolu xam nga lu muy néew néew rek dañ la cee war a gërëm leneen li tamit lu mu rëy rëy rek ñu xalab la ci. leneen li ci des lenn kese la. demleen leen ngeen wuy ji dem leen ngeen wuy ji Khalifa Ababacar Sall dem leen wuy ji Amadou Ba dégg naa li nga wax yow laa àndal dem leen wuy ji opposition bi laa wax Déthié Fall dem leen ngeen wuyu ji Macky Sall opposition bi Malick Gakou yéen ñëpp dem leen wuy ji Macky Sall bu leen ñu fontaw meen tout le monde yéen ñëpp laay waxal waxuma ci man nag parce que ñenn ñi samay grand lañu yaa ngi dégg li ma la wax ñàkkewuma leen teggin dem leen ngeen wuy ji Macky sàll après ngeen ñëw dëggal li ngeen di wax ak askan bi parce que moom jeexal na ak askan bi jeex na c'est fini waxuma ak ay Bun Jonn waxuma ak ay Ali Nguy Njaay waxuma ay Mam Boy Diawo waxuma ñoom ay Anta Babacar Ngom non non opposition bi dem leen ngeen wuy ji Macky Sall opposition bi nag ñun xam nañ opposition bi Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall yi candidat damay taxaw rek fi ma war a taxaw sax man Assane Diouf candidat yi ma doy mu wóor ma ne bu ñu leen dénkee senegaal dinañ ci def dara ñooñu laay lim dégg ngeen na ah? Khalifa Sall Bassirou Diomaye Faye Déthié Fall euh, Déthié Fall ak euh, Boubacar Camara yeah quatre candidats yu valable Macky cinq la leen joxoon cinq deux mille 2019 cinq candidats génn wax leen ko ne dinañ gagner élection yi ci ci ci ci ci ci tant de pourcentage mu ñëw di dëgg Macky Sall <laughs> sama gars yi Macky Sall boobu Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Abdoulaye Boun Dionne Anta Babacar Ngom ak ñeneen ak ñeneen dama leen di lim benn par benn benn par benn parce que dañu jëm ci campagne électorale te sénégalais war nañoo xam lu baree baree baree bare man ci loolu lay dox duma Pastef duma Pastef duma Pastef duma ma taxawu Sénégal du ma PDS duma benn parti benn injustice freedom fighter xam ngeen lan mooy freedom fighter ah da ngeen dem ngeen lire docteur Martin Luther King livre lu ëpp foofu laa ko jële lu ëpp foofu laa ko jële ma dem Amérique di seetaan ay documentaire ba egg ci bosu Martin Luther King moo tax ma njëkk a dem Atlanta ci biir université ba daf ci am benn couloir boo xamante ni Cheikh Anta Diop lañ ko tuddee ci biir université ba Atlanta Georgia ma dem fa am lu bari lu ma dugg ci suma papa Cheikh Anta <laughs> suma papa Cheikh Anta Diop te sama papa dëggantaan nag parce sama mbokk la cent pour cent deret soxlawul explication pour sénégalais yi xam ma dem déglu ñu wax ci Cheikh Anta Diop bi ñu tuddee université Cheikh Anta Diop bii le savant boo demee Amérique ñu koy woowee the best scientist maanaam ki leen gën a jaaxal ci nit ku ñëw <laughs> boo demee ci biir université ba ñu waxtaanee docteur Martin Luther King waxtaanee Cheikh ante xolal après ma nekk góor meen parce que góor dangay xeexal sa réew te bañ a sos nag bul sos bul fen bu fekkee ne dañu wax ne dañu bëgg Sénégal rek bu kenn sosal kenn bu kenn fenal kenn man lu ma fi mës a wax rek lu ci waaye am ci vaar rek génne ko lu ma leen mës a wax lu ma taxawee fii waa Pastef yëpp naan Sonko mooy suñu candidat lii ak lii li ma la amuñu plan B nii <laughs> xoolal fu ma mës a taxaw laaj leen ko ay Abbas wala xam nga ñoom ñëpp tout le mu leen wax par force da ngeen am plan B <laughs> parce que kiy pexe kiy pexe yor ay pexeem muy Macky Sall topp Ousmane Sonko rek wàcc ko ah, pour am lu mu bëgg mooy lii nii tey après yéen ngeen bëgg ko may opportunité mu amaat boobu opportunité man duma ko nangu jamais génne leen fenkat yi seen biir wax naa sànq ci Cheikh Bara Ndiaye <laughs> naa dina am ñu mu neex da dëgg gi rek laay wax ah je m'en dëgg gi rek sa baara du wax ko tu dëgg maara doomeram boobu du wax ko tu dëgg lu mu wax day fen mbubboo bës bi rek billaay wallaay barke Muhammad lu mu wax day fen moom waa jooju sant ñas lu mu wax day fen mu bari ci nag ñu bëgg ñu gis benn source de commerce muy Pastef ñu ne nañ ci jafandu rek di leen utiliser nuñ ko mëne di wax di fen Baara Ndiaye taxawul fii ne yor na ndomba ndomba boo xamante ni ku ko takk doo dugg kaso Cheikh Baara Ndiaye taxaw na fii ne dégg ngeen ma bu baax <laughs> Cheikh Baara Ndiaye mii man alhamdulilah ba mu ma seedeeli liy dëgg man tamit baara dama lay seedeel liy dëgg kàcc nga wóor na Serigne Touba kàcc kat nga billaahi te xam nga ko sama diggante ak yow ak yàlla waxoo dëgg dëgg gi ñun bu mënee dem ci Macky Sall rek mën na dem ci keneen on est tous des toog nga ne faala fleuve bul bi ma dajeek moom dama ne ko yow moom dañ laa soxla yow demal toog fee parce que waroo dem ci manifestation yi nangam nangam xëy toogaat ci beneen télé ne xale bu ci ne sama papa wala sama yaay xam li ma la ah wala ku sa ndey ak sa baay tere xam nga ah, yàqal na xaw ma noo ko waxee yàqal na la sa avenir wala lan ak lan ñëpp a war a génn xeex yàlla may la xam-xam nga ne. ba Ousmane Sonko 2025 tey bii tey jii ma lay tontu nii ah kenn mënul tere mu bokk ci élection yi tey la 2000 waxoo woon beneen date de fen nga tey la tey la 25. tey la 25 février 2024 li nga waxoon yépp dara amu ci kon fenkat nga ba pare dolli ci ngay farandoo di fenaat di wax naan maara fenkat boobu sant ñas amoo numéro te lu mu wax ay fen la yow nga bëgg ci dugal sa bopp ah? di may sénégalais yi ñu naan non yee Cheikh Bara génn na seede alhamdulillah ba sa waat man dama ne billahi wallahi wa barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa li may wax nii lu leer la moom mara boobu di woote mara bu ah? sant ñasan ah? fenkat bi day fen billahi wallahi yow ma yow nga war a waroo woon sax dugg ci émission bi Cheikh Bara parce que bi ngay wax xam nga ne da ngay fen yow yow sa bopp Cheikh Bara Ndiaye xam nga ne li ngay wax ay fen la parce que da nga ne Assane Diouf nit dëgg la sénégalais yépp xam ne moom nitu dëgg la waaye dafa juum lu tax ma juum bis boobu ba pare daal ne ah, Mara nag xam nga maa ngi koy gërëm di ko sant ndax moo ma doon defendre foofu moo tax ma défendre ko ci yàlla sa làmmiñ moo la loo loolu moo tax nga défendre ko lim la défendre moo tax nga défendre ko mais défendre roo ko sa digganteeg yàlla ndax sa digganteeg yàlla wallaahi billaahi am nga numéro Mara Niass Mara Niass am sa numéro. Mara Niass am na numéro Assane Diouf Assane Diouf am numéro Assane Diouf am na numéro Cheikh Baara Ndiaye seex Baara Ndiaye am numéro kon keneen ku ci dugg loo ci wax. jéggal naa la barki yonant yàlla Muhammad parce que bugguma nga dee ci bàkkaar ñoom ñëpp ay kàcckat lañu ba pare xanaa dangaa fàtte defaral Ousmane Sonko ndombo pour mu bokk ci élection yi deux mille vingt quatre le vingt cinq février da nga ko fàtte xanaa boo mënee gis ne kenn mënta tere kenn mënta tee bulletin Ousmane Sonko nekk ci biir urne yi le cinq février 2024 <laughs> tey la 25 ngay fen dañu ànd wax ci dëgg mais nañ defar Sénégal ci dëgg bàyyi par parloo bi patriotisme patriotisme patriotisme neexul de ah dëgg neexul <laughs> ñun ñoo ko wax wolof dëgg neexul dañ waxante dëgg rek defar Sénégal Macky woote na opposition bi opposition bi Macky Sall moo jël décret ne renvoyé na élection yi jébbal ko conseil constitutionnel suñu grand Kamou Badio Camara mu taxaw ci dëgg ne ko fii la la xoolal lii nga am amoo yoon yokk élection yi amoo yoonu wàññi ko parce que constitution la <laughs> delloowaat ko ko ne ko wool concerné yi ngeen waxtaan ngeen jàpp datu élection bi bu leen ñu fontoomee dama leen wuyu ji Macky Sall par force la ñaanuñu leen ko ñun ñoo voteel yéen sénégalais yi wallahi ñii nii bu ñu demul wuyu ji Macky Sall ku ci voté voteel ci kenn ci ñoom rek war nga Sénégal barke Xaadimu Rasuul yéen sénégalais yi ñii bu ñu demul wuyu ji Macky Sall yéen sénégalais yi ku ci voteel kenn ci ñoom ku demul woon rek war nga Sénégal wallahi billahi ba pare ma leeralal leen convocation yi Macky sàll joxe pour ñu dem wuy ku ci nekk recevoir nga sa bos neewoo waa ji non dew ma de yóbbu ko fële yéen la ñuy tromper yéen la ñuy tromper ku ci wuyu jiwul Macky Sall bu ngeen ko votelee billahi wallahi war ngeen Sénégal yéen sénégalais yi laay waxal nag waxuma keneen bu ngeen fi defaatee erreur ba fal fi wala ngeen def fi erreur ba Macky Sall ngooy ci nguur gi ah <laughs> yéen toogaat beneen cinquante ans sa waaye boo yéen ñëpp ngeen jël retraite yéen ñëpp ngeen jël retrait génne leen fenkat yi seen biir Macky Sall comme baaxul buy dem lépp lu bon da koy yóbbaale parce que commencé na ba pare waa këram yi gisu leen kenn ku génn di wax kenn ku génn di wax sama copain bi may nurool sikkim moom daa génn ndeysaan ci conférence de presse bi di ñaan Macky Sall ne ko ndax di ñu dimbali ngir yàlla protéger ñu ñin ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak yow di liggéey <laughs> monsieur le président yóbbante bii nag moom su ma ko waxul moom xam naa ne sénégalais yu bari ah parce que ñu bari yóbbante nañ ma ko ah président ñun ñi nga xamante ni dañoo àndoon ak yow léegi xam nga bu ñu demee ba lii weesu xam nga lan nga leen di garanti tara tara bëgg a dugal question armistice si bañ leen bañ leen bañ leen maki day dem maki day dem soxlawul mu fi teg benn loi wala benn soxlawul dara na dem rek na dem rek dem leen wuyu dem leen ngeen wuyu ji moom moo ko ñaan Macky sàll moo ñaan loolu képp koo xamante ni mën nga ci dox wala nga wax ci dem leen ngeen déglu li Macky Sall képp koo xam ne mën nga ci dox wala nga wax ci dox ci wax ci altine wala talaata gën gaa yàgg ñu toog waxtaan ñu jàpp datu élection yi ku nekk génn yor sa micro rek di wut di wut fuñ fu fu la foo victimiser woo di jaxase sénégalais yi di jaxase bopp sénégalais yi dem leen ngeen wuyu ji am na ñuy bind ay tur ay candidat non sama yoon ci ñoom man sénégalais moo ma Sénégal moo ñi mën a yor Sénégal wóor ma ne bu ñu yoree Sénégal jàmm rek mooy am Ousmane Sonko bu fi nekkoon wóolu naa ko sama biir xol parce que man rek duma sénégalais te li ëpp ci sénégalais yi ñoo ko jox bopp. bu weesoo loolu Khalifa Ababacar sàll parce que damaa dund ak moom 15 mois ci biñ koy xañ xëy na gone yu bari yu nekk ci kii bi fii di woote patriote di yàq der fekkewuñ ko. te boobu Ousmane Sonko amagul sax parti xalifa Sall nekk fi di liggéeyal sénégalais yi nekk benn ministre boo xamante ni isa xam na Khalifa mooy maanaam ku am xawma at yu néew mooy premier ministre bu ñu jël comme ministre bi gën a yor ay at yu néew ci histoire du Sénégal ministre xalifa jël mairie bi liggéeyal Sénégal ñi ko jiiñoon sàcc bi biñ koy amaan xam ngeen ñaata lañ ko amaan dañ ko jiiñ un milliard huit cent et quelques millions juge ko tardel ko amaan ko cinq million <laughs> sàccal sama waaye yow ñi ñoo ñu yàpp <laughs> ñuy xeexal xalifa di wax xalifa président parrainage yi ñëw mu dem ñu ne xoolal nangam ak nangam moo tax moom mënul jàll parrainage te loolu moo doon ay ambition Macky Sall la xam ko xeex ko je vais diriger l'opposition à sa simple plus expression di ci liggéey bis bu ne kër gu nekk rek woo woo seytaane comme ni ma koy waxee woo woo seytaane fépp lay dugg rek di jaxase xalifa après ñu bëgg ko diaboliser quoi tey na ñun ñoo bokk senegal di woote patriotisme parce que xam loo xam ne ci ay loxoom la taxawee moo ko jiite woon moo ko jiite kenn dàqu ko mu démissionné xalifa Boubacar Camara ku nekk boo déggee dëgg la ngay xam ne lii dëgg la man xaw ma ko mais parcours laa xam fi mu jaar ak fi mu egsi tey Bassirou Diomaye maa ngi moom ñoo nekk ndowoon central demu kasoom bii nii man ak moom ñoo nekk ndowoon central Bassirou Diomaye sama rakk nit ku baax nekkandoo fa ba ñu defeere ko moom moom moom lañ moom lañ defeere man ñu bàyyiwul parce que dañ ko yàkkamti woon a pression bi la woon ñii ñoo mën a yor Sénégal ñii ma leen limal nii ñoo mën a yor Sénégal bu Ousmane Sonko ñëwee alhamdulilah Khalifa Sall ñëwee alhamdulilah Déthié Fall alhamdulilah Sénégal laay waxal nag waxaluma sama bopp bu desee Sénégal kese kese man Assane Diouf ah. man Assane Diouf bu desee Sénégal kese awma ci papa awma ci yaay ñépp samay papa lañ samay yaay lañ samay rakk lañ samay doom lañ samay jarbaat lañ samay bàjjan samay yumpaañ samay ñépp tout le monde bu desee Sénégal kese mu dóor doom làq doom te duma tàldal sama réew ci kii sama mag la naa ànd ak moom wala kii sama xarit la naa ànd ak moom non senegaal Sénégal ok gu taxaw ñu ànd liggéey dem leen nga wuy ji opposition bi dégg na ah? dem leen ngeen wuy ji ñu yàlla defal jàmm defal ko Sénégal ci barke Seydina Mohamedan ah. génne leen fenkat yi seen biir dégg ngeen ah? tey le cinq février élection amul loolu mënul continuer dem leen ngeen wuy ji Macky Sall nu mu gën a gaawe nag dégg ma ngay génn Sénégal kay da génn kay dem feneen mais fii moom doo fi nekk xoolal nekk fii soxna ay dara nekk fii xoolal xale yi nekk fi ay ñoom ma penda ñoom Mor Dior Seck ñoom Assane Ndiaye ñëpp nga non yow xam nga ne bul ko sax xalaat <laughs> mission la par force la day metti nag day metti mais xoolal yàlla jàmm rek la lay defal laal di nga waaye par force booy <laughs>